ñu nuyu population sénégalaise di nuyu waa Biscuiterie di nuyu suñu kilifa diine yi ak suñu kilifa aada yi niñ ko baaxoo def at bu jot lañu yàlla ci kàttanam mayaat ba mun ñu mun koo def ci at bii ñu nekk muy nyoba baaxoo tam xarit bu jot du ñu wàll yàlla ñu jënde ko ay nag bokk ko ak ñi nga xam ne ñoom dëkkal ñuy amul xàjj ak nyep nyep, amul problème parti amul problème mu amul problème mu wa waa Biscuiterie yi lañ ko di ñaan yàlla mu may ñu kàttan boo xam ne ci at yii di ñëw koñ bu nekk ñu yeew fa am nag maa ngi remercier nag suma jigéen yii ma ci àndal dañu nekku lim juum waaye képp ku baax Biscuiterie yi taxaw nga fii tey ñu ànd séddoo ko ak population bi at bu jot dañuy ñaan yàlla yokk nee naa bi may soog a tàmbali ñu ngi ko tàmbali woon defe naa ci juróom-ñaari nag dem ci fukki nag juróom te ñu ngi ci fanweeri nag bugg naa fi yeew ñaar téeméeri nag ba koñ bu nekk incha allah dinaa fa yeew nag.